fay peex sëñ yóbbu fan yi ba peex ma jóob bi may waxtaane sëñ Tuubaa lu ma yoroon jox nanu loolu faaw seereel la ko waaye bàyyeel na ko nunu sëñ Ablaye Mbaye moom itam teew na danoo bëgg rek ñu may gan gi ñu tudd ko jox ko aw tur bu nu noppee nag sëñ Saliou Samb wuy waxtaan comme njëkkee li anam mooy biis ñëwal ñëwal taxaw fii ci kanamu sëñ may leen may leen may leen presque nañ taxawee à côté من يوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الدندان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك رأيت يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة وموقدنا في الفتنة وعصمنا به من الزيج والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعالنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيونك عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لرحائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيقة وحرجه يا ربنا يا خالق العوالم خل بيننا وبين كل الظالمين أرثنا يا بر ويا كريم وارحمنا يا رب ويا رحيم يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم كن أمل فإن الخير عندك أجمعه ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع من ذا الذي أدواتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع دعوناك ربك ما أمرتنا فأجبنا يا رب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد برد أشجار الموجودات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الشيخ عبد الكريم مسلم هو أعطانا sëñ Ablaye wuyu sëñ Ablaye Diop xaas na ñëw wuyu na ñëw wuyu ba pare ki ci gàtt gi na ma déglu Ablaye Diop def na lu rafet Balla Gaye la fekk fee mu toog muy Omar mu na ko ñëwal toog fii ci kaw yaay joxe sama tur wi yaay wax ci sama kàddu loolu cër la Sëñ Mbacke Diop gis naa ko ñu teewlu sëñ Mbacke Thiam. doomu Cheikh Moutalla mooy tudd. Jili Kanji. Mamoun. doomu Cheikh Moutalla mooy tudd teewlu leen sëñ Touba jur sa baay de. bu tuddee rek ma jox Mouhamed ñëw. sëriñ Touba jur baayam. mu yëkkati. loolu yombul de. sëriñ Touba mu jur sa baay. waaye mag rek a faaw. Cheikh Moustapha Mbacké góor yàlla. mooy sa baay mag rek a faaw ma toog fa baay bi. baay jëm a Touba. donc nag kenn de. sëriñ Touba jur sa baay. Oh! gan gi tudde ko ki nu gënal ci jigéen ñëpp maam jaara bu sa borom xam laay ah wuyu leen ma Saliou Samb ñëw leen ci mbootu mi sama ñaari junne gi mbootu mi barke borom Touba mbootu mi la génn sëñ Moustapha Ndiaye Karim mbootu mi sëñ sëñ Jumaa yi sax dañuy joxe ci mbootu mi mës daawu la jëw daawu la jàng daawu la jaye daawu la jaayoo ka jaay fi jayi ku sóobu yoonu jannatu naaymi ku ko royul dem jahannama nay jaara ma maam jaara ana soppey soxna jaara borom poroxaan jaara ma maam jaara moom fii la poroxaan ma xoo doo ñoo ngi dëtëm bay coroxaan dina ci xar mi ma gaaw gànnaar dëtëm nanu banaa mandi yaay mam la yow sa ndoxu xajul ci xandi bu sa baali dikkale la moom rek a attan yéen waa baaray Madu Lamin Ahmadu Lamin waaw ci kanam di nga ko def ana Mouhamed Niang